voilà salaamaaleykum waa Jaxaay salaamaaleykum waa Jamono 2 salaamaaleykum mbokk téléspectateur Géejawaay info comme li ñu leen ko waxoon démb ñu ngi woon tey fii tey ci terrain Jaxaay pour euh, ñëw xool aussi ñoom it nan la ñuy préparé seen match xam te ne match derby la bi nga xam moo lay a opposé ak ASC Jamono 2 jeudi fële sa stade Amadou Barry à partir de 17h donc ñu ngi woon fii tey ñëw fii tey ci terrain Jaxaay gis nañ ko ñii tey ñi ngi ni commencé sen entraînement ñu xol après ci kanam touti xol ñom nan lañuy préparer sen match deur bi nga xam tane mi ngi opposé ci sen digënté ñom ak sen dëkkëndo di ASC jamono 2 donc ak pap sa tay fi fekk ci ko fi ci entraînement ñu xol nan lay préparer match sam par rapport ak euh, match bi nga xam tane jëndal ñu ko ci jeudi yow ak euh, ASC jamono 2 donc ñu bayiko su nga def présentation bu ndaw waaw euh, jërëjëf ablaye man ma ngi tuddu pap sar man may entraîneur ASC Jaxay nek ci zone 2 nek ci zone 2 Euh, de préparer ce match contre euh, Jamono 2 jeudi oui, match quart final nous sommes ci préparation comme euh, nous ngeen fait les ñuy et je pense bien que nous aussi une préparation bi du match bi rek moo ñuy préparé wu dañu entamé une benn saison c'est vrai que depuis le début nous avons et je crois que match bi aussi tamit dafa bokkoon ci de préparation début saison parce que son objectif aussi euh, de woon jamono 2 objectif où vraiment gagner quelque chose là ren ci dynamique qui lañu très voilà suba un objectif si biir wax nga seen objectif du woon jamono 2 donc yalla def na nga jamono 2 est-ce que la préparation est day changer par rapport à li nga xam nga au début.

loolu moom moo ñu yëkkati quoi. voilà démb bu ñu déggee euh, entraîneur u ASC jamono 2 bi. donc nee na moom équipe bu xam la parce que gis na la visionné la xam na bu baax. Mm-hmm. que ni équipe bi nga xam te ne mën nañu jàpp euh, mm-hmm. a jàppee. que xam nga moom aussi vraiment maa ngi koy nuyu de passage mu boo xamante ni ma jox cër la et puis naa ko trop euh, rafetlu liggéey bi muy liggéey parce que xamee wu ma ko géejaay xam naa ko depuis très longtemps mm-hmm. xam la waaju bëgg li muy def la wax aussi euh dam koy nangul dam koy nangul c'est vrai que tay ñi ngi wax Barcelone Barcelone mais c'est vrai que ni ñi ñoo ñu tuddé non mais mënuñu nekk Barcelone parce que Barcelone ak Jaxaay xam nañ ni amna écart bu reuy mais l'essentiel moy ñun ren dañ ñëw euh, pour football pour football pour faire plaisir vraiment au public ñu jouer ñu teg ko ci ay bases yu claires yu solides pour que au moins nit ñi aussi tamit bu ñëwee 70 yi ñëwee exact 70 match c'est un euh, seen xol neex. effectivement ci base boobu la ñëwé ñëwee ren. Euh, si côté côté médical est ce que mën na jàpp ne équipe bi machallah machallah machallah vraiment tout le monde va bien ñëpp ñi ngi fi gis nga joueurs yi wara jouer match bi yëpp ñu doon jouer depuis le début ñi ngi fi. ñëpp ñi ngi ci jamm amuñu ben problème ñi ngi entraîné sérieusement wax dëgg yàlla et puis amul ben ben ben problème et puis les joueurs sont prêts sont prêts depuis. le match bi moo tax ñuy paré paré nañu bien avant match bi parce que suñu préparation aussi du woon pour match bi amon na yenen match yu nekk ci kanam di te je crois que ñun loolu lañuy viser. voilà donc euh, sama dernière question moy nga ban appel ngay def euh, supporter yi nga xam ñooy supporters Jaxaay ak supporter Jamono 2 parce que match bi match de quoi comme puisse dire waaw man li wax kérok euh, le maire nous a rencontré avec le président de l'ASC Jamono 2 ak quelques dirigeants man li wax rek mo ci nek football la man football la xam man fo dem ASC bo dem do fa am ay am di jam te de je crois que du match bi tay moy tax may am ay non supporteru Jaxaay ku leen xamoon daw xam leen daw jéeg gis leen rat xam ne am changement ay supporters yu discipliné lañu gis nga leen tey ci biir terrain bi ñi ngi toog yor seen asiko parce que gëm nañ ni am nañu équipe am nañu équipe boo xamante ni war na mën a sori trop trop trop trop ci championnat bi kon amuñu pour def violence te je crois que duñu def violence man wax naa leen ko chaque jour ñi ngi fi man ak ñoom ñooy nekk violence du am ren zéro violence day doon dinañ ànd ak équipe bi dinañ ko gunge ñu dem jouer lu ñu yàlla jox ñu ñëw mais dañu ñaan yàlla mu jox ñu ndam parce que gëm nañ ñi yàlla dina ànd ñun dinañ jox ndam xam nga loolu moo ci nekk donc ñaari côté yëpp aussi ñun comme niñ koy defee ñoom it nañ ko def seen côté xam nga parce que tamit ku ñuy jiiñ chaque jour naan yaay tooñ yaay indi violence yaay indi violence ba mu croisé ses bras ah yaakaar naa ni buñ ko bàyyee noonu mu continuer noonu te yëngaluñ ko wala cokkaasuñ ko coow mën a bañ a am te ñaari côté yëpp ay famille lañ fa compté am nañ des amis là-bas de suite na yàlla nañu yàlla may ñu joué ci fair play que le meilleur ku gagné yàlla na la ndam li jik après ñu continuer quoi te xam ne affaire bi yamul ci benn match kese. voilà mu nekkoon tey fii coach Pape Sarr ñu jëloon ko ñëw fekkas ko fii ni muy préparé masam donc ku ko dégg mi wax tamit même kàddu gi la ah bi a contre euh, jamono de donc ñu doon laaj tey est ce que naka ngeen préparé match bi ci côté financier est que équipe pare na waaw alhamdulilah équipe bi mom paré na ci côté yépp ndax té biñuy budgétiser dañ doon budgétiser pour saison bi budgétiser wuñu pour euh, pour match euh, dañ doon budgétiser pour saison bi yépp yalla def nak ñu dajé ak jamono du lo xamné c'est la première fois ndax té jaxay jamono fokk ñuy dajé parce que ñoo bokku zone waaye ci match rek la yem si match football la yem si 90 minutes la si côté préparation je pense que le comité directeur le bureau les supporters et les joueurs ak euh, encadrement technique bi ñom ñep defe na ni paré nañu paré nañ paré bo xamné tay bu ñu suba suba wala tay tay tay mën nañ dem défi compétition bi mën nañ dem défi rencontre bi. voilà est-ce que est-ce que jouer ak jamono doo yomb na par rapport ak match ngeen di est-ce que jouer ak jamono doo yomb na na kon match derby la parce que c'est di dëkkandoo est-ce que jouer ak jamono de yomb na ci côté finance y wax toujours waaw c'est-à-dire que jouer jamono 2 si côté en terme de derby écho bi muy def du bokk ak yeneen match parce que tali moo ñu séparé ñaari grande ASC lañ ku si nekk joué na bu phase zonale joué départemental wala régional. match bu mag la préparation kon bu mag lay laaj mais yalla dimbali nañu si côté préparation wax deug fa yalla muy aspect financier yalla taxawu nañ si té comité directeur liggéey nañ liggéey bo xamante préparé won nañ li depuis bi premier tour yi jeexee côté finance boobu noonu tamit dañ ciy profité waale sax di remercier le maire de la ville muy Aliou sàll nekkul na sax daf ñoo jàppale pour match bi mais daf ñoo jàppale jàppale boo xamante ne kat euh, dajale woon bu ñu amoon ñu ak moom ñu profité woon ci waxtaane waxaale waxu problème mu ASC bi far mu def geste mu tombeek mu ñëw ak ci jamonoy match bi di remercie tamit le maire de la bay di Seye du yemul sax si ay yi jaxaay mais dafa jàppale sax yeneen ASC yi muy jamono muy jaxaay muy daaru di ko defal sax ay ASC yoo xam ne nekkuñu ci biir commune bi kon loolu daal ñu ngi ciy sant yàlla bu baax muy sama comité directeur sama président commission financière muy ñu yar euh, lépp loo xamante ne moo jëm si volet financier wax dëgg fa yàlla taxaw nañ taxaw boo xamante ne pare nañ si aspect financier. voilà sama dernière question rek mooy que ni tey dem bi ñu laajee président ASC jamono 2 bi woo na ñi violence donc parce que ñaari ASC ku ci wax xamante ne seen diggante dafay metti donc yow boo amoon message bi nga xam te moom ngay lancé ASC jamono 2 ak ASC jaxaay xam nga ASC jamono 2 ak ASC euh, histoire dafa def loo xam ne da leen boole. ndaxte ki nga xam ne tey moo ñu njaboote ñun ñëpp muy maire commune bi yàlla dafa def mu nekkoon président ay say jamono yàlla def mu nekkaat premier président ay say jaxaay ba pare jiitewaat commune bi yàlla def ñi nga xamante ne tey ñoo nekk biir jamono muy seen dirigeant nga xam ne su jëlee lépp teg ko président bi muy Bassirou Diakhaté du moo ñu boole dañoo am jàmm bokkoon école ay seen ancien capitaine di Biram Koundoul ñu am jàmm bokkoon classement ak moom seen dirigeant zone yi muy Youssou Seydi président de la zone muy Khalifa Dione Nous ñi fa ni ñoo ñep ay mbay ñaan yalla dafa def ñom ak relation tamit relation di match la un match dafa am enjeu parce que enjeu bi il faut que am kenn quart de finale am demi-finale mais du compétition est fi la parce que ki jëloon coupe bi daaw ñun ak mom ñoo commencé woon ndaw supporters yi ñun sensibiliser nañ leen bu baaxa baaxa baaxa baax a baax d'autant plus que tay sax amana na réunion pour ak euh, comité supporters yi pour sensibiliser leen pour wax leen na fola esprit fair play la que le meilleur gagne ñi nga xamantene ñoy ñooy moy mooy ñene si diir terrain ba ñoy ñoy football mm. mais supporters yi li ñu leen sant mooy ñu def ambiance mm. dem buñu dem stade mo am ambiance am esprit fair play mm. buñu joggé stade mo am ambiance am esprit fair play l'essentiel moy victoire bi du génn commune limamou lay ñun ñu ngi lancer un appel solennel à l'ensemble des supporters de l'ASC Jaxaay mais aussi aux supporters de l'ASC Jamono ñu leen wax na ñaari ASC ben lañu jàmm mo tax jog parce que esprit nawetaan entretenir des relations d'amitié entre les différents quartiers amitié bobu nak du yakko ci ASC Jaxaay yaakaar naa ni du yàqoo aussi si ay say jamono wax dëgg fa yàlla match la si match lay yem dañuy continuer la vie continue voilà. voilà mu nekkoon euh, président ASA Diakhay donc dégg nañ li mu wax ah, par rapport ak tamit li président ASA jamono de wax dem donc muy woote si la non violence te loolu lañ ciy ñaan donc muy ñaan yàlla euh, match bi nga xam te moo dox si diggante ASA jamono ak Diakhay. mu nekk match derby donc ñu ngi ci ñaan non la bi nga xam te moom moo tax a jug ñëpp donc di wax ne Fallou mi capitaine ASC Jaxaay comme ni ko defee woon fële démb jëloon capitaine ASC jamono 2 bi donc tey yow ñu la laaj tey euh, match bi psychologiquement naka ngeen ko préparé parce que ginnaaw suba ngeen di joué match bi préparé na ko comme ni ñuy yeneen match yi dab ñu semaine bi moom entraîné na entraînement bu baax xam nga match de football rek la comme yeneen match ñu duñ ko jàppee comme yeneen match yi que fii boo gisee joueurs yi fi nekk que am nañ qualité te yu mag la takusaan bu ne fubal nañ ko ci stade bi kon boog match mënu leen a jaaxal préparé na ko ñuy préparé yeneen match yi te euh, incha allah jeudi dinañ ko montré stade bi yëpp dinañ ko gis incha allah comme amul benn poids bi nga euh, ma lay wax rek match moom bu ne gars yi fubal nañ ko fii amul zone bu ndaw takusaan bu ne gars yi fubal nañ ko. xam nga am na loo xam mënul ñàkk rek passe temps la mais gars yi seen niveau dépassé na sax nawetaan gars yi fii nii kon boog match bi mën leen a dépassé match de football la ñun bi ñu football ci bi ku seetaan football la xam ni bal bi day daw jaxaay moom bal bi day daw voilà que ñi ngeen di ziel muy ASC jamono ba est xam nga leen bu baax ASC jamono do seetaan naa ko match de poule mais gis naa leen tamit équipe bu baax la mais comme mas de football la daal match de football la tant que quatre-vingt-dix minutes yi matul rek xam nga mënoo xam quoi ndax football moom amul logique quoi amul logique. mais ñun préparé nañ ko ni ñu ko war a préparé. te aussi wax jamono 2 wax jaxaay xam ne match derby la. donc yéen ban message ngay passé supporteru jamono 2 ak supporteru jaxaay. supporter jamono 2 supporter jaxaay nan def dox ci fair play rek fair play mooy lépp quoi ñëw xam nga sangu ba set xam nga match seen garab toog ci kaw tribune bi ñëw seetaan football bu fekkee football bu rafet rek lañ bëgg a gis nañ ko gis stade incha allah jeudi. voilà nous remercier mon baax Fallou le capitaine ASC suis donc mu nekk euh, match bi nga vraiment match bi jeudi à 17h sa Amadou Barry donc nous souhaiter suis bonne chance vraiment tay nañ fi ñu jommal parce que ñu la par nañ mais aussi nañ parce que vraiment yëngal no xol a na ci

Euh, dul faja fa lañ defee. voilà yéen naka ngeen naka ngeen di ñëwee stade ginnaaw suba. fair play ñun ñëpp xam nañ ñu ren ñun waa fair play lañ suñu logo mooy ñëwal jël dem ñibbi jamono luñ sekk moom mooy dañuy ñëw jël dem ñibbi parce que ñun loolu lañ jàng rek logo bu bees sax bu sooba yàlla nañu mobiliser wu fortement lu jàngane que quart final la. mais dinañ mobiliser wu code final parce que dañoo bëgg match ñoo ko a bëgg. su ma déggee say bii wax daal mi ngi mel ne yéen bëgg match bi comme ñoom aussi démb li wax ñoom nee nañ bi seen bakkan lañ ci teg maanaam match daal nee dañ ko bëgg a gagné quoi yéen presque mën naa la wax match bi teguñu suñu bakkan li match xool lañ ci teg parce que xool mooy doxal bakkan. gars wala boog. voilà léegi yéen euh, asiko yi ba gis ni tey yéen suba ba heure ngeen fas yéene dem stade ginnaaw suba parce que ñoom nee nañ 10 heures la ñuy dem yéen suba ginnaaw suba ban heure ngeen bëgg dem. ñun bu soobee yàlla somb bi na xaar ku nekk 8 heures soo ñëwee stade nga ndekk somb bu baax parce que xam naa ni lu ñu waajal lii nga dégg nii ay lancement la mais su ñëwee naa leen fekk ci wéy fekkee leen ci kaw fekkee leen ci solu fekkee leen ci suuf fekkee leen ci fuba dem ñibbi. voilà ñoom seen i biir wax aussi bon bu ñu waxee match ASC Jaxaay ASC Jamono 2 xam nañ ne derby parce que yàgg ngeen daje ay match yi demee noonu donc yéen tey nan nga koy wax ñi nga xam ñoo ngeen wax ñi nga xam ñoo nekk si ginnaaw ñun toujours dañu ne Jaxaay agression Jaxaay agression mais agression dafa war a deñ parce que ñun ku ñu gis xam na ñun booy ñuy ay nouvelle génération lañu yoo xam ne ñun nouvelle génération lañu mais man may wax sama morom مرام يي مان خالي بو ندولا ني تام ييب اي خالي ندول لاني امنا سونو كليفا كو ملني والي سار خما اي نيوم ابو تيام نيوم نيو ني نيو ني نيو ني ديريزي lan moo des yàlla rek la ñuy xaar mu may ñu ndab ñu ñibbi si. voilà bu nekkoon fii tey président comité supporter bu ASC Diakhaay comme niñ ko defoon fële jamono de ñoom aussi pare nañ ñii tam pare nañ donc mu nekk mas bi nga xamante ne vraiment ñu ngi woote si fair play ñaari ASC yi ay doomu ndey lañ ay doomu ndey lañ donc dara xaj bi xaj ci diggante bi donc nañ ko jouer ci fair play et que le meilleur gagne donc ku ñëw fii gis leen tey am na woo yoo xam te ne fental nañ ko sa ASC jamono ñu bàyyi leen tuuti ngeen dëkk fii. Jaay. Jaay. Jaay. Jaay. Jaay.